Cyril Ngom loolee ci boppam maanaam rafetul jaaduwul te Macky Sall ci boppam moo ñuy foowee yéene kaay gi nee na coalition Yewwi Askan Wi ñoom nee nañu danañu jokkoo ak ngir nag traduire Macky Sall haute trahison ba pare Jibril Ngom moomee ko porter plainte Macky na palais bi ba ci journal bi ñoom Ousmane Sonko nee nañu askanu Sénégal ñoo war a seeni matukaay résistance jamono ji féppay metti fépp la ay ñaawteef am te Macky Sall am ba na ji sunu pétrole bi ak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 Direct News xëy di ñu xibaar naa ñu Sénégal jamono ji nag sore wut ak mag mu màgget fépp ay mete ndax ñi nga xam ne ñooy transporteurs yi maanaam mer nañu ba maara di tali nekk ci ab gréw étudiants yi ñoom tim jamono ji maanaam ñoo ngi ci ab gréw akub xiifal jàngalekat yi ñoom tim nee nañu fas yéene nañoo dem ci ab gréw yéen kaay gi di lay siku ñu xëy fekk fa njiitu réew mi di président Macky Sall keroog bi nga xam ne dalal na cadre unitaire de l'islam ak société civile gi Sall wax na leen ne mbooleem li nga xam ne violence la dañoo bëgg jël teg ko sama ndodd te mi nag demeewul noonu